ñaari jëmm yoo nga xamante ne nii seen yitte jëpp mooy jàng ak jàngale muy Serigne oustaz Modou Fadil Ndiaye ni sametu ndeyjoor ak al oustaz Serigne Kunta ñoom ñëpp ñuy boroomi xam-xam ñu fas yéenee nag waxtaane loo nga xam ne dañ koy waajale màggalu sëñ Touba gii ñii naan ko mag njëkk ñii naan ko mag Daaru Xudoos waaye di bisub sëñ Touba ñu fas yéenee waxtaan nag ci worma ji nga xam ne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 waaye njëkke ca way juróom ya kon al ustaadul faadil tafadal mashkur audu billahi min alsheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wa salla allahu wa sallama ala alhaadi alamin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain rabbi aini alabda li yutima alqasda wanshur alaya albarakati duna dur wa li siwaaya kuffa kulla ma yadur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 muy Cheikh Mbacke Kunta ak mboolem rekk mbokk yi teewe jataay bi yëpp euh, ki nga tudd léegi nag muy Cheikh Mouhamadul Moustapha ci nan la taxaw woon digganteem ak waajur yi ko fi Cheikhul Xadim bàyyee woon loola doonatut lu réer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 ba waxal boppam ne jaay na léppam rasulullahi sallallahu alayhi wa loola la muy wane mooy yitteem ju kawe ci yonent bi sallallahu alayhi wa loola it moo ko may ba mu téeñale yitte liggéeyam bu réy bi mu liggéey moom xadimal Mustafa mu mën koo liggéey waaye bi mu fiy bàyyi koo di dem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 kon léegi dañ lay bàyyi kàddu gi nga ñëw ci lu waral léegi war ma jooju di gën a manqué di gën a ruus sëñ Cheikh alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala almabuusi rahmatan lil alamin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mbooleem ñu ñu bokkal toogal ci jataay bi sëriñ Cheikh Diop ak suñu mbokk sëriñ Mouhamadul Fadil Ndiaye di nuyu it mbokk yi ñi seetaan di sant yàlla suñu boroom mi ñu may ak wér akuk tal ba ñu fekkee jataay bu tedd bii di ko ñaanit mu saxal ñu ci tool bu mel nii ba keroog suñu ruu di tàqaliko suñu jëmm di siyaare alxalifatul am li taifatil muridiya ayadahullahu wa nasra di siyaare it borom penc mii di ñaan suñu borom mu dëgëral ko te kàttanal ko ngir waxtu waxat wi rek euh, Serigne Cheikh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 te arab yi dañuy wax ne isaa tàmmal lu xalal kalaamu nit ki su am xelam évolué ba màgg rek ay waxam daal di néew kon wax ju bari ji yëpp mooy xel mu des la ndax fekkonte ne li ngay wax yaa ngi contrôler bu baax a baax ne maa yalfas min xawlin illa ladayhi raqibun atid kon kenn ku nekk booy wax da nga peese say baat peese li ngay wax xam fi nga koy jëmale loolu day dellu ci nit ki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 ak moroomam mënta ñàkk te ci taxawaay bii rek la sëñ Modou taxawan ngir dirise yoon wi wépp ba teg ko tey ci nii mu aw ku ñëwate rek yëf yomb ci loo yow bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf al oustaz Modou Fadil Ndiaye ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne résumé nga war ma ci sëñ Modou joxoon waaye nag al oustaz Kunta waxee woon léegi rek ba lañu see ñëwaat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 tawet gi woon taxaw gépp tax ngeen ko sëñ Tuubaa da wax ak yéen di jëf ak yéen xamal na leen loo xam ne ñun ñi wujju sax xamuñu ko loola war ma mënu koo weesu ndax xam ne waajur ma mënoo fexe ba mag ko mooy mooy sa kilif dajale seex suñu fees dal la ci seen borom su ñëwoon di imposé naan leen maa maay doom sëñ Tuubaa nangam nangam la baayam waxoon ne ku waxe bakkan ñu fayal la bakkan mën na faa juddoo waaye sëñ Mor ca teggee ne leen a dajale na leen maa yéen kat dañ noo boole woon dénkaane kañu boole woon dénkaane jii nag jox na ma la ñuy dénkaanee